bës bi nag dafa di bës bu am solo dafa am solo ci ñaari fànn d'abord bi ñu yàlla mayee ñu fekkee ba ñëw voté mais surtout bi ñu amee bësu élection ndax yéen ñëpp xam ngeen ne élection yi dañ ko dàqoon waaye askan wi taxaw euh, ba ñu am indiwaat ko euh, ci bësu tey bii euh, kon mën naa jàpp ne démocrate Sénégal yëpp. tey mën nañ jàpp ne bés bi euh, seen ndam la euh, ndax c'était pas prévu dañ ko rejeté woon ñu tegaat yëf yi ci yoon euh, mu yegg si doon le 24 mars donc c'est une double victoire li nga xam ne nag moom la ñu yox suñu mbokk sénégalais yi mooy ñu génn wate ji parce que vote dafa am solo surtout ci bés bi yi nga xam ne ay nit pour défendre bés bi ñàkk nañ ci seen bakkan war nañ leen cee rendre hommage en accomplissant notre devoir citoyen ndax ku ne nag am nga sañ ci sa réew ci bés bi nag moom mooy bés bi nga xam ne moom ngay wax na nga gisee sa réew ak kan nga bëgg nag euh, mu mu mu jiite la kon dafa di devoir boo xam ne bii képp ku tuddee sa bopp citoyen waroo ko tayal war ngaa ñëw vraiment euh, def sa vote am na am na solo lool li gis ci centre yi nag euh, macha allah affluence bi bari na waaye des na des na na centre yi na nit ñi génn euh, dal di dal di dal di voté euh, bu ko defee mu doon euh, ndamu démocratie lii rek nag moo taxoon ñu taxaw taxawuñu woon pour leneen pour que peuple sénégalais am le droit de s'exprimer librement choisir librement ñi nga xam ne ñoom lañ bëgg mu jiite leen loolu soxlawul xuloo soxlawul xeex wala soxlawul nit di ci dee loolu mooy leçon bi nga xam ne moom la ñuy jàpp ci 24 mars bi bi ñu accomplir suñu devoir citoyen bi ñu ñëwee wote euh, di encore une fois euh, lancé appel jigéen ñi ñu ñëw voté xale yi ñu ñëw voté personne nga xam ne euh, dañu am handicap ñoom it ñu xajal leen ñoom it ñu ñëw bu ko defee mu doon bésu ndam pour la démocratie sénégalaise